pouvoir bi daanuñu kaw euh, nu mu tuddati mujjee ci loxo terroriste yi loolu ay waxam la yu mu jagleel extérieur mais ñun fii xam nañu ne ça ne tient pas la li tax le président Macky Sall revenir ci le processus c'est parce que d'une part Karim Wade éliminé nañ ko mais d'autre part également Bassirou Diomaye fay jàll na mhm. léegi xam nga euh, man pour man jusqu'à présent benn équation moo demeuré une seule une équation mooy conseil constitutionnel est-ce que juge ya fa nekk ils sont li ñuy def dañ koy def en toute autonomie wala ils sont manipulés. la preuve Mame Birame ñëpp a ngi jaaxle ci mutisme bu waa conseil constitutionnel am jamono ji. Hmm. ñi mun naa pourquoi situation mu toll fii nii te ñoom ils n'ont pas fait de communiqué wala génn ñu wax. même su fekkee sax mu def communiqué. waaw mais defoon nañ communiqué. am na communiqué je dis après la sortie du président. waaw tout à fait mais xam nga boobu sax quelque part euh, mun nañu xalaat ne comme euh, puisque président jël na décision annuler processus électoral bi ñoom dañuy toog di xaar ba ñu saisir leen. Mm-hmm. pour véritablement déclarer décret bi président Macky Sall Macky Sall la jël inconstitutionnel. d'accord ok xam nga loolu c'est une possibilité. Mm-hmm. te loolu soo koy def. pour man jarul ngay communiquer da ngay toog rek di leen xaar au tournant. d'accord ñu ñëwaat ci li nga doon wax loolu c'est une c'est une possibilité. Mhm. mais xam nga euh, euh, euh, ma ne équation boobu moo nekk tey pour man boo xamante ni résoudre guma ko xaw ma conseil ndax lu ñu ciy def ñoo ko def exprès dañuy def parce que président Macky Sall moo jàppoon depuis le départ. que Karim Wade su déposé candidature am na ngeen ko éliminer ndax ñu mën a sukkandiku foofu pour annuler élection yi wala ñoom ñoo jàpp ne Karim Wade warul jàll dañ koy éliminer ba loolu métti Macky Sall ba mu ne day revenir at sur le processus xam nga déjà la dernière fois je pense que waxoon nañ ci loolu. Mhm. may la la suite ñu permettre ñu gën a comprendre. pour ne pas dugg ci loo xamante ni xëy na euh, euh, euh, du doon du conforme ak la réalité. Mhm. mais. bu nekkee ne ñoom li ñu décider dañu ko décider en ci seen aqulaayu taalaa maanaam ñu jàpp ne lii mooy yoon loolu la ñu war a def. Mhm. dina leer puisque ci seen communiqué boobu ma lay wax ne génne nañ ko avant discours président sortant bi. Mhm. dañuy wax ne ñoom dinañu continuer def seen mission selon li leen ko conseil euh, euh, constitution bi santé mais également selon les lois de la république ñoom loolu la ñu wax. Mhm. te bu nekkee ne loolu ñu wax noonu dëgg la ci ñoom. jàpp naa ne situation bi c' est pas encore trop tard on pour revenir la dessus gannaaw suba les candidats les vingt candidats waxuma Karim de les vingt candidats. Mhm. reprendre seen campagne ñu def comme si le processus kenn laalu ko. Mhm. loolu naka lañ koy defee mooy comme nu ma la wax sànq dañuy toog xaar ba ñu saisir leen ci décret bii le président Macky Sall jël. te loolu pour mu mën te euh, te loolu pour man warul sax poser conseil constitutionnel problème. puisque en 2016 président Macky Sall ba mu diggee ne ba mu diggee ne dafay euh, réduire son mandat. Mhm. ba mu diggee ne day réduire son mandat de sept à cinq ans lu mu waxoon pour wut bunt bu mu ci génnee dafa dem saisir conseil constitutionnel. Mhm. conseil constitutionnel ne ko sa mandat munoo koo wàññi. très clairement. Mhm. ne ko munoo ko wàññi léegi bu nekkee ci conseil constitutionnel boobu la ñu dem ah suba wala gannaaw suba. di dénoncer ab décret boo xamante ne nii day yokk mandat wu président ñoom ñi ne woon mandat kenn mënu koo wàññi donc je pense que ne bu nekkee dañuy liggéey seen akulaayu ak kenn manipuler woon du ñu am benn difficulté pour revenir là-dessus. moo gën a cohérent. moo gën a cohérent te soo seetloo parti démocratique sénégalais démb dañu def point de presse. Mm -hmm. de presse. Mhm. lu ñu wax mooy dañu bëgg ñu teg une cour constitutionnelle maanaam jëlee fi conseil loolu pour man c'est également un moyen de comprendre que PDS wuñ ne la ñu voté bu ñu demee conseil constitutionnel est-ce que duñu ko teggi moo tax ñuy mettre pression ci juge yi nga xamante ni ñoo nekk conseil constitutionnel daan leen seen conseil bii kat boo moytul dinañ ko dissoudre pour indi beneen cour constitutionnel mais dans tous les cas déjà décret bi président Macky Sall def mun nañu koo attaquer au conseil constitutionnel. Mhm. mais également loi bi nga xamante ni député yi voté nañ ko à l' assemblée nationale bërki démb. xaw ma démb ah, bërki démb. ci mhm. xaaju guddi gi. Mhm. boobu également bu ñu demee ba nga xamante ne ni. opposition bi attaqué nañ ko au niveau du conseil constitutionnel. ñoom juge yooyu également amaat nañu possibilité la ñu waxoon en 2016 ñu ñëw daal di koy dëggalaat. kon jamono ji conseil constitutionnel rek moo mën a sauver processus bi su fekkee saisir nañu. très léegi nag ñoom. su ñu ñëwee ñu indil leen décret président ñu ne amuñu luñ ci wax wala ñu ne comme liñ daan wax ils sont ñu indil leen loi bii ñu voté barki dem assemblée nationale ñu ne ils sont incompétents mën nañu jàpp ne lu ñu defoon jusqu'à présent dañ leen koo defloo ñu koy def te bu boobaa xam nga lan lay feeñal xadisi la mhm. que tout ce qui s'est passé là maanaam bi sénégalais yi toogee naan dinañ jox fii Habib Ayib Daffé wala duñ ko ko jox dinañ ko euh, dina euh, euh, retirer attestation gannaaw ba mu déposer caution am. Mhm. maanaam coow loolu yëpp bi muy am. Macky Sall mu ngi toog ruqam rek comprendre nga. Mhm. dinaa yéen daal def leen li ngeen di def rek. man xam naa fa mooy mujjee yéen mooy mhm. annuler élection yi. c' ce que ça voudrait dire te loolu li koy gën a corroborer mooy Rose Wardini tey moom du ma wax soo xam Rose Wardini parce que Rose Wardini Rose Wardini moomu. ba ñu nee jàll na parrainage mais ça a surpris boo de sénégalais. Mhm. man def naa fi keppaar gi ma ne candidature boobu bu dee dafa jàll dafa am véritablement lu état bi di chercher. pour euh, euh, dafa am rôle bu état bi bëgg mu jouer. Mhm. boobu mosuma toog di xalaat ne affaire de nationalité dinañ ko ci wax. bon sa surprit tout le monde man déjà je savais même pas qu'elle était candidate. très bien mhm. léegi nag moom bu ñëwee. jàll aussi facilement parrainage bi. Mhm. est-ce que nekkul ne état bi ñoom xamoon nañ ne la dame la am na trois nationalités. Mhm. te suba bu ñu tegee sur la table la nationalité de Karim Wade ba génnee ko ci élection yi. Mhm. mën nañoo wax ne processus bi baaxul parce que Karim génne nañ ko parce que am parce que am na nationalité mais am na keneen ku jàll te am même national. Euh, double nationalité waaye ñett di rappeler ne il bénéficie d'une liberté provisoire. mais loolu day gën a ñëw euh, euh, jaxaseeti affaire bi mu gën la woon ne. est-ce que nekkul loo xam xamante dañ koo prémédité. Mhm. parce que Thierno Cissé amul liberté provisoire ma nga rëbës. mi ngi rëbës de. te pourtant moom lu ñu ko bindal ak lu ñu bindal Soham Wardini daanaka benn la ay faux et usage de faux en écriture publique et cetera et cetera mooy seen terme juridique yooyu. Mhm. donc bu nekkee ne euh, dañ ko euh, placer en garde à vue. war ko defeere démb la xaw ma bërki démb. Mhm. ñu ne démb may nañ ko liberté provisoire ça voudrait dire ça con thèse bi may wax ne lii yëpp ñoom ñoom ñoo ko calculer en amont pour wut prox ndollu bu ñu génnee ci euh, euh, euh, élection yi. mais kon ça veut dire que un plan bien nourri. mais bien ñii ñii di dajale seen xaalis ñii def ay collecte. très bien nañ ni fii la ñuy mujjee ñu jël yëf yi plan ko toog di xaar. te gis nga sax pour man loolu moo gën a vraisemblable maanaam li yëpp dañ koo prépare en namo pour man loolu moo gën a yeenu maanaa lu tax parce que <laughs> Amadou Ba le premier jour bu ko président désigné laa ne du candidat am c'est un leurre. waaw ma ne ma ne daf ko jël dafa jël Amadou Ba di ko teg ci loxo bayeer yi mais Amadou Ba Macky Sall buggul mu succédé ko mais bu ma nee Amadou Macky Sall buggul Amadou Ba succédé ko c'est parce que am na keneen koo xamante ni moom la mag bëgg en réalité mu succédé ko ba mu dem ONU dinaan leen. mon successeur sera comme ceci il sera comme cela. xam nga mm-hmm. def na ko fi. Mm-hmm. ñu bëri fàtte nañ ko am na benn pencoo fi maa ngi dénoncer le fekk que le président di naan euh, conseil. dem ba Nations Unies dem ba Nations Unies dinaa leen sama successeur nii lay mel bu ñëwee dina dina juboo yéen patati patata te xamul moom kan la sénégalais yi di fal. donc mooy que depuis le départ j'avais alerté. que Amadou Ba du candidat Macky Sall c' un leurre. nga ne da ko teg ci loxo bailleurs yi c' était juste pour leen rassurer que ni. Euh, bu ñu xoolee club de Paris ak dette yi mu fa def Amadou Ba moo nekkoon euh, en 2014 et en 2018 Amadou Ba moo ko jiite. Mhm. premier bi ñu ngi naan ay xaw ma 3000 ñaata milliards la ñu fa jëlee. ay bor yu dul jeex loolu yëpp Amadou Ba moo ko moo ko lijjanti. Mhm. léegi bu ñu demee ba nga xamante ne ni euh, président sortant bi mu ngi génn. jël ba jël euh, comment dire ku mel ni Amadou Ba teg ko à sa place pour bailleurs yi seen xel day dal dañuy jàpp ne xaalis bi ñu lebal Sénégal kat bu dee Amadou Ba moo succédé à Macky Sall dinañ si gën a jotaat. bien sûr l'état c'est la continuité ok. Mango Amadou Ba moom nekkuloon bu bu nekkul candidat Macky Sall mais nañu jàpp ne ki nekk candidat Macky Sall mais pareegul parce que kenn xamagu kenn officiellement kenn xam waxu ko. officieusement ñu bare ngi wax ni ah, euh, bon bokk nga ci sax ñu ko gën a tees mm. te l'histoire t'a donné raison mooy c'est Karim Wade xam nga xam nga xam nga euh, euh, <coughs> les ñi ñuy wax lee libéraux wala man sax duma wax libéraux mais dama naan les waddis ñi nga xamante ni il se réclame du waddis te pourtant nag Macky Sall joxe na ñoom ñoom ñaari camp yëpp sax joxe nañu plusieurs signes yuy wone ne lii xew nii réeroowuñ te maa lay wax la dernière fois je sais pas ndax yaa ngi koy rappelé wu ma ne la analyse à chaud souvent day nekk lu métti parce que day am ay éléments yoo xamante ni doo ko am mais analyse boo xamante ni def naa ko à chaud aw ma élément yëpp mais dafa ñëw rek ma analyser ko te na ma ko analyser woon loolu moo xew mooy intercoalition Yewwi Wallu bi jour boobu ci jour ba la ñu ko yëg ñu amoon fii euh, Walf Grand Place ak Pape Maguette Gueye ma ne loolu de c'est une grande erreur bu ko yeewi askan wi defee parce que ñoom lañ doon gis ca jamono jooju mooy dañuy teg une intercoalition boo xamante nii dina permettre euh, à l'opposition mu am majorité mais plus de euh, comment dire ñu am plus de députés que euh, Macky Sall mm-hmm. mais léegi yow boo demee nga ànd ak wallu ngeen ëpp ay député Euh, euh, euh, le pouvoir hmm? sur cent soixante députés ngeen am cent yi supposons mhm. ngeen am cent yi bàyyi pouvoir bi soixante cinq yi mhm. léegi Yewwi ci cent députés yooyu am ci soixante dix kee am trente hmm? mhm. kay am ñaata waaw soixante trente hmm? léegi boo leen demee ba nga xamante ne nii comme li feeñ ñi am na 30 yooyu wàllu su ko jëlee yóbbu ko ci 65 yi du ñoom du ñu nekk majorité. bien sûr donc loolu laa doon wax ne ñu mettre Macky Sall en minorité ak des députés yoo xamante ni mun nañ koo fekk ji loolu ça n'a absolument pas de sens. te jamono ji mën nañu wax ne ñoom ñoo am majorité à l'Assemblée. xam nga lan moo xew. parce que le duo duo baa ngi noonu duo des des maanaam li xew Sénégal mooy ñi fi falu yëpp ñu si bari ci opposition bi ci barke Sonko la ñu faloo. Mhm. ba pare dem rejoindre le pouvoir pour fexel Sonko. Mhm. même ci local yi sax looloo am. donc ñoom dañoo gis ne donc ñoom loolu mooy wane ne déjà euh, am nañu certitude que majorité bi Sonko moo ko yor léegi ñu ne nan la ñuy wéeroo ci Ousmane sonk boobu pour am ay député yu ñu ko xeexee suba yaa ngi gis nu mu sadikee. ma paaka bay leen Sonko ñoom ñoo ko yóbboo Sonko daasa leen ko ñu ñëw jam ko ci ginnaaw. très bien mais mais mais euh, li taxoon ma wax loolu mais c'est parce que dama gis ne. les libéraux mooy les waddistes là euh, euh, comment dire seen euh, pexe yëpp mooy comme ni ko Abdoulaye Wade waxe woon conserver le pouvoir pendant cinquante ans. Mhm. léegi loolu bu ñu ko bëggee def te sànq maa ngi naan la par rapport ak Karim Wade Macky Sall wane na ay signes yoo xamante ni Sénégalais dañu ko bañ a gis. et la même chose aussi pour ab Karim Wade parce que lu xew nii l'électorat euh, fu mu toll nii waa PDS sénégalais génn nañ ci ñoom. mais la majorité je dire dañ leen mere. mais mais xam nga xam nga xam nga xam nga euh, euh, situation bi dafa indi ñu bëri ñu waaye di comprendre mhm. li tax ma wax loolu mooy bennoo Bokk Yaakaar hmm? ñu ne am nañu candidat le candidat sappel Amadou Ba. Hmm? keneen ku bokk beneen coalition ne Amadou Ba dafa corrompre ay juge mais waa Benno <laughs> ñu ne seen candidat dafa corrompre juge ñoom ñu ànd ak ki jiiñ seen candidat pour teg commission daaneel seen candidat. ba pare taxaw ci pupitre assemblée di ko traité de corrompeur. wa waaw waaw de corrupteur plutôt. mais mais loolu c'est extraordinaire sax moo tax may la situation bi dafa waye di loo ñu bëree bëri. ñeneen ñi ay ñoom Abdou Mbow dañu dañoo bëgg a setal seen candidat. mais ñeneen ñu waa Bennoo ñoom candidat bu bokk beneen coalition ñëw na jiiñ seen candidat ñoom ñu ànd ak kooku pour fexeel seen candidat mais waa taxawu Sénégal également dañoo waye di barki Demba Ndiaye la ñu fi yekk lu ne waa Pastef. waaw ah, ndeysaan. mais gisoo leen démb ñoom ñoo taxawandoo ak ñoom euh, seen député yi ak ñoom euh, Birame Souleye Diop. di ma gisee Barthélémy Dias kay ak kii di kii dama ne cey politique Sénégal daal politique mun nañoo wax nii c' est kenn xamul la la yëfi daal ñu ngi changé kenn xamul la la boo gisee baat ci côté waa Pastef dafa ne yëf yi moom. xam nga xam nga xam naa ne mënuma politique. xam nga senegal te yaakaar naa ne ñun loolu moo ñu gën a sonal mooy.